fépp ci biir réew mi ak ci biti réew ma ak ci biti réew mi dinañ leen ko toppal moo xam fi ñu nekk di Tivaouane ak foofee ca Dakar suñu ay ndaw ya fa des dinañu woy di tenir ay plateau foofee donc ñu ngi donc euh, ni ngeen ko gisee noonu délégation bi ànd ak le premier ministre Ousmane Sonko euh, ay ñoom Azoura Fall ñu ngi gis aussi Euh, benn ci seen avocat maa ngi ko doon rappelé léegi di naar njaay ak ki nga xamante ne moom mooy protocole am ci biir parti Pastef di ki nga xamante ne moo di Jibi njaay donc euh, ñu ngi leen di seen noone ne euh, fi mu toll ni protocole baa ngi jublu ci fan la PM war a jublu ak naka la war a jël ngir rek ñu teguwaat ci yoon bi nga xamante ne fa la ñu war a dëkkmal donc yéen gis noonu autorités yu gunge. Euh, le président euh, du parti PASTEF et le premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko voilà ni ki ni nga xamee euh, yéen a ngi seen noonu Azoura Fall moom itam bokk na ci direction bi mu mel ni am na yenn ci xëccoo yu dox ci digganteem ak commissaire bi mu ngi noonu daanaka ñu ngi koy dégtal fan la war a jaar ak ban yoon la war a jël donc fu ñu leen gis nag tey daanaka fu ñu ko seen dañuy seen kii di Abdou Nar Ndiaye Euh, mu ànd ak moom voilà ñu ngi seen aussi Jibi Gueye Ndiaye ci ginnaawam aussi euh, ñu gis Jibi Gueye Ndiaye ngi noonu di daw wutali ki nga xamante ne moo di peut-être Abdou Naar Ndiaye wala ci seen oto bi nga xamante ne moom moo war a jiitu ngir mën a wax fan lañuy ñuy dëgmal wala fan moo nekk la prochaine destination du premier ministre Ousmane sonk donc ñu ngi bouger ñu itam ngir gën a jege porte bi ngir mën leen a dundaloo euh, la sortie du PM euh, la fii si booy taxawal. message booy jagteel askanu Sénégal ak sa bi ngay ñëwoon si jumaa waaw xanaa di dellu di sant yàlla suñu borom tey lin fi indi woon. en fait dañu ñëwoon en tant que leader de la coalition en fait Diomaye président accompagner le premier ministre pour mu ziare effectivement bërëb bu tedd bi xam ni Sénégal yëpp ñoo ko bokk. loolu nag yaakaar naa képp kuy jullit rek wala di doomu aadama ne ci réew mi sa xol sedd na ci en fait li xam ne moom lañ taxawal fii loolu nag lañ ñëwoon doon ko magnifier en fait donc di ko ziar donc ñuy ñaan yàlla suñu borom euh, weeru tedd wi nu nekk yàlla barkeel mboolem lu waay dugg incha allah ci barkeel ko Seydina Muhammad sallallahu sa wa sallam loolu daal man homme politique ñu la dissolution de l' assemblée nationale ñu war a jëm ci élection le 17. Mhm. lan moo war a doon waaw xam nga en fait euh, man je pense que ni en fait c' est dans l' ordre normal des choses parce que en réalité kenn ku ne xam na ni maanaam la dissolution de l' assemblée nationale mënoon a ñàkk maanaam maanaam nécessité la. pour permettre au président de la République li xam ne moom la sóobal sénégalais di le projet mu mën koo maanaam réaliser mais tant que loolu amul gis ngeen sabotage bi xam ne moo amoon ci assemblée nationale loolu bu nu wéyaloon lu ni mel mbir mi du mujj fenn euh, moo tax moom ci aussi conformément aux prérogatives qui sont conférées par la constitution du Sénégal mu jël effectivement donc euh, li ko yoon may tas assemblée nationale bi li dese incha allah li nuy woo sénégalais mooy ñëpp mobiliser wu jox ko une majorité écrasante pour mu mën a mener à bien en fait le projet effectivement donc tant euh, sénégalais. merci beaucoup merci alors mu nekkoon maître Abdinar Ndiaye njaay Abdinar Ndiaye di avocat bokkee it ci pôle avocat président Ousmane Sonko moom itam dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko ñeel solution wu assemblée nationale waaye ñeel aussi lu jëm ci taxawaay bu sénégalais war a am ci prochaine jour élection présidentielle yi nga xamante ne ñu ngi koy élection législative yi ñu dëgmal euh, ci bés 17 novembre bi ñu dëgmal donc. le première ministre Ousmane Sonko amal na ziaram bay génn noonu di quitter fi nga xamante ne moo di enceinte grande mosquée bu Tivaouane ànd ak euh, cortège am ak euh, niñ ko accompagner ci dispositif sécuritaire bi nga xamante ne daal dinañ koy jël donc voilà mu mel ni amal na ziaram ba noppi li ci des moom mooy tegu ca yoon ba te si la nekk ni ànd ak euh, cortège am ak dispositif sécuritaire bu am solo donc euh, le PM Ousmane Sonko depuis ce matin mu ngi fi euh, ci grande mosquée bu Tivaouane fi la jullee li nga xamante ne moo di tisbaar daal di amal aussi ay ziaram gannaaw ziar yi nag daal di ni gannaaw julli tisbaar bi seex na waxtaan ak kilifa diine yi nekkee fii ci Tivaouane euh, bam mu ca noppee nag amal ay ziaram ba ca noppee def déclaration ñeel message ba mu yónnee askanu Sénégal donc pare na ci loole yëpp mu ngi teguwaat ci yoon bi ngir wutali peut-être yeneen destination ya nga xamante ne fa la war a dem selon agenda de déplacement am tey donc mu ngi noonu moom le PM le premier ministre Ousmane Sonko gannaaw visite bu fi son excellence le président Bassirou Diomaye Faye amal euh, avant-hier tey emboîté na ko le pas daal di ñëw fii ci grande mosquée bu Tivaouane rencontrer aussi euh, les kilifa les les autorités religieuses maanaam kilifa diine yi daal di rencontrer aussi euh, disciples wala voilà daal di rencontré ñi nga xam ñoom ñooy voilà daal ñi nga xam ne ñoom ñooy taaliba yi nekkee fii ci ci ci Tiwaawan daal di nekkee fii ci Tiwaawan euh, bi mu ca noppee aussi def na déclaration ñu xaarandeegum lii nga xamante ne moom moo soxol la suite euh, en tout cas euh, ci la suite de son déplacement moom le premier ministre Ousmane Sonko donc jàll na génn donc cortège baa ngi noonu cortège baa ngi noonu di dem voilà mu ngi noonu cortège baa ngi noonu di dem euh, ànd ak dispositif sécurité bu am solo avec sortie bi nga xam te ne préfet ak commandant bu département bu euh, Tivaouane ñoom itam teewoon nañ si jotaay bi yéen a gis noonu déplacement wu préfet bu Tivaouane voilà donc visite baa ngi Ousmane Sonko daal ne ñëw tey si juma wu grande mosquée bu Tivaouane amal ziaram gannaaw ziar bi aussi fekkee remise symbolique bu clé wu juma biñ doon déglal dégtal ki nga xamante ne moo di kii di euh, le xalif général waaw kontaan nañ si bu wér ndax maanaam Ousmane moom Sénégal yàlla li mu ko may waaw kontaan nañ daal si teewaayam fii nii si Tivaouane di ko ñaanal li mu sumb yàlla yeggale ko jàmm waaw merci sëñ bi yàgg fi loolu jaajëf mu nekkoon kàddu yi ñenn ci ci ci patriote yuy teewoon aussi fii ngir fekkee ñëw le premier ministre Ousmane Sonko euh, voilà mu ngi noonu donc euh, visite bi fi doon euh, le premier ministre Ousmane Sonko doon amal daanaka yekk yegg si nañ fi ñu koy collecturé mu ngi noonu di génn ànd ak délégation ak cortège am ngir wutaliwaat yeneen destination yu soxal tey déplacement am donc mu nekkoon sous la présence effective en tout cas de tous les disciples Tidiane yi ñëw fii ci Tivaouane ngir célébrer euh, niwi buy marqué la naissance du prophète Mohammed sallallahu taala alayhi wa sallam donc ñu ngi noonu di jëm ci barrière bi nga xamante ne fa la le PM Ousmane Sonko génne pour rek taataanal leen du ñàkk yenn ci ay kàddu yi nga xamante ne askan wi am nañ ko yëkkati ngir wane seen mbégte jëm ci bés bi nga xamante Euh, le président le premier ministre Ousmane Sonko daal di woon na ko amal fii tey euh, ñeel li nga xamante ne moo di euh, ziar yi nga xam te mu ko fi doon amal bis ni tey donc yéen a ngi fii ci Tivaouane ba léegi ci grande mosquée bu Tivaouane tey ñu doon couvrir visite premier ministre Ousmane Sonko bu ñàkk dinañu ñëwaat ci déclaration yi nga xamante ne daal na ko fii jël jagleel ko askanu Sénégal gis ngeen askan wi noonu ñu bëri génnoon nañ. ngir rekk fekkee si li nga xamante ne moo di visitu premier ministre Ousmane Sonko taalibe ñu ngi fi ci wetu jumaa ji jumaa ju mag ji di jumaa wu Tiwaawan ñu jël benn fidèle di sant ci seen taxawaay di rafetlu di rafetlu ñëw bi ngeen fi ñëw ci bésu Cheikh Seydi El Hadji Malick bés bi nga xamante ni fu jullit ne jugee nga fa ñëw fii tey ci Tiwaawan ñii ñaan yàlla yàlla defal ñu fi jàmm defal ko bépp jullit xalifa bi caabi yi teg ci loxoom tey yàlla bum ko yéex a jullee yàlla na yàlla yàggal ko fi wéral ko fi wéral ay sëtam wéral njaboot bi yëpp ci barki yonante bi teew bi ñu teew nii yàlla nañ ko jullee si ci barki yonante bi sallallahu alayhi yàlla bu fi kenn manqué